waaw ah, hmm. hmm. hmm. ngor nag moom luñ ci wax daju ngor woon. ngor de moom Ibrahima. waaw. ngor de si moom Ibrahima ba mu tabax Kaaba ga. Ah. bëggoon def ba bëggoon tabax Kaaba. ñu ne nan la bu Kanaana di di di la jël ko bi. mu mu ñaan ko mu suuf si bënn mu doog wuti Màkka dina Màkka. muy lëm moomu nekk ngor. waaw. parce que dañ ne limaamu yàgg na foofu toog foofu di xaar fu mu war a feeñ ci war a xeet la war na feeñ waaw ma ne hmm. waaw du limaamu nga nekkoon nag waaw su mu nga fa jóge di ci loolu a sama gëm la man loolu tax ma gëm la man waaw bu ko defee loolu la sëñ Malick Fall wax ni am na fa juróom-ñetti fukki at nekk naaru gànnaar te boobu Seydina Limaamu Laay ñëwgul ba mu ñëwee nag ba woote ba dem sëñ Asan Salaam ñëw ci mujjub jamonoom bii mu tudde sëñ Asan Salaam ñëw fekke woote ba ca Seydina Isa wëla rek moom wëla rek moom wëla rey bu nga xam ni am na yoo xam ni mënuñu ko wax ci biir ndax sëñ Assane dafa nekk nit yàlla bu di un million jox ko pour mu dem màkk ba mu dem màkk man maa ko yóbbu su ma woto aéroport ndax kër ga la jaar fara solo ñëbbu ko aéroport bu yàlla dogalee mu ñibbi si maa ko teeru yi nag waaw dama la yóbbu ma njaareem mun ma yóbbu ma jàmmalaay ca yoof yëpp maa mu maandu de ah ma daal booba maa ngi dawal booba li dalagu ma dem ba yoof ñëwaat musumi daal ya ak mbaxana musumi sumay daal suñu ànd waaye dañ dox lu tolloog vingt cinq mètres mos na man ko waxaw mun ma ñeenti malaaka ya ma bàyyi ñuy garde xabru yaa rasulullahi Muhammad ñoom la ñoo fekk ñeenti laa ñu ñëwal jàmmalaay billahi wallahi tallahi daa dugg jàmmalaay ñu ma ma ku ma lugg nga wàcc daldi ko laaj rek daldi di wàcc ñu ngay jigéen mhm. bàyyi laay bañ koy fexeel mhm. lalu bañ koy fexeel mhm. moom la la yoon yoon maanaam bàyyi laay waaw di ko biñ koy a jàpp bañ koy fexeel waaw te mu mu dem ca ndigal ab làqukaay la woon am làqukaayam ca natt ba booba ak garab la ñu bi bi woon aw doj la ko woon mu génnaat foofu nii ku ku wedd nag dem dellu si dangay seet foofu nii ndaw yonent bi génnoon na ca Makka tudd Muhammad mu mu dil mu mu dil mu dil bi tudd imaam mu ne ma man lépp loo xam ne wax naa ko suba ba ngoon képp ku ko weddi di nga dem safar ndax yàllaa ma ilham waaye du ma seet du ma birat du ma jibat du ma ñikki mu ne ñaanoon naa Muhammad sallallahu alayhi gileem mu dem ñëwaatuma ba mu génn àdduna ma dem ci Aboubacar laa ko fekk mu ne ko sama gëléem gi Mouhamad digoon laa jël si mhm. mu ne ko xaaral ba Umar ñëw mhm. nee mu demaat ñëwaatul ba Umar ñëw mu wax ko gisaatu ko mhm. ba mu ñëwee sëñ na Isaa mu ne ko gëléem gi Mouhamad digoon yaa mu koy jox mu ne ko jox nañu la ko waaye yow mal xiyaam nga koy wax ñëpp gis la ñëpp seen la xam ne kii mooy ak seen talaam oh, waaw oh. seen talaam nee yàlla may. di àgg ak Kila Mouhamad Nabouan. ba mu ba mu te waa Makka doon ko sareel. te mhm. maa ndax aboo bi gis sa deer des dem ko màtt. te naa boobu gis sa deer te feel ko. mu mat ko. mu ne kenn yut gi jógee ci gémmiñ gi dal ko ci nopp bi te du guy. yéen mhm. su fekkoon nelaw mu yeewu ne waaw li lu mu doon jaaj mën na mënatul wax jaaj ne ko maa ko maa <laughs> maa ko mat doon bëgg a mu di ma la tere. mu ne ma ma ne te ku ma ku ma lugg nga wàcc daal ko laaj rek ñu daal di wàcc. Mm-hmm. waaw ñun mm-hmm. jigéen. Mm-hmm. bàyyi bañ koy fexeel. bañ koy fexeel. moom itam te ngay jigoo la la xool. ñoom ñoom. maanaam waaw di ko bañ koy bëgg a jàpp bañ koy fexeel. waaw te mu jëm dem ca ab làkkukaay la woon. am ndax waayam ci ba booba booba garab la ñu bi bi woon ca màkk aw doj la ko woon mu génnaat foofu nii ku ku wedd nag jëm génn si da foofu nii ndaw yonent bi génnoon na ca màkk tudd Muhammad mu mu mu mu si ci kaw bi tudd imaam waaw sëñ Tuubaa bi nga xam ne ne ñu ngi dem ñu ngi dem ci géej gi ba bañ bañ di ko dugal ko ci gaal gi muy gaal gi daw ba tisbaar mu wutam ndox di jàpp ma ko raxasu bay jàpp maram bi bay bëgg a noppi maram bi di ci laal ko njàpp mu yàqu mu mu dellu ko saatam jàpp maram bi di ci laal ko njàpp mu yàqu ñetteel ba mu di ko jàpp benn benn maram ba daw jëm si ci moom noonu ci del ba daal di wuti ndox ma naka naka ak ci ci pegg gaal bi sànni del ba bàyyi daal bàyyi daal di ronu ron na ci ron ci bay daal ca ron dellu del ba tegu ci kawam ñu julli ba sëlmoon delluwaat delluwaat ca gaal ba bay daal delluwaat yor ba mu nekkoon mm. mm. alhamdulilah